waxtu jëwrin ji nga xam ne moo yor wàllum jënd jaay waxtaan na ak mbootaayu jaaykatu Tivaouane yi ndugg mi nga xam ne soxla nañ ko ci gàmmu gi njëg gi ak li nguurug Sénégal tëral lépp ci wàllum jënd jaay looloo waraloon ndaje mi. ba mu noppee ak commerçant yi jëwrin ji dem na fee ca marché Tivaouane ngir mën a xam nu mbir ya tëddee. ci ndigalu président de la république Macky Sall mu joxoon ñu ndigal ne. xew-xew diine yi fu mu amati wala xew-xew yu mag yi nañu yegg si xool li nga xamante ne mooy marché bi ndax euh, yi nit ñi di jëfandikoo euh, doy na andi nañ ko ba mu doy sëkk ci grossistes yi commerçant yi bi ñëwee ci Tivaouane nag wër nañ grossistes yi wër nañ détaillants yi waaye tamit dem nañ ci préfecture ànd ak gouverneur ànd ak préfet ànd ak service yi déglu leen ñoom ñu wax li nga xam ne ku ne li mu am ci stock ñu wax tamit ci qualité produit yi ma ci jaajëfal gouverneur préfet ak service départemental ak service régional ndaxte ñoom def nañ opération coup de poing une semaine dugg ci biir euh, boutique yi euh, gis fa produit yi nga xam ne dañ koy tere wala yi nga xamante ne euh, dëppoowul ak li yoon maye ñu jaay ko moo xam ay ampoule la moo xam ay pâte dentifrice la moo xam yeneen ba ci ay garab sax loolu yëpp nag di liggéey boo xamante ne moom mooy liggéeyu ministère du commerce. foofu nag waxtaan na bu baax ak jaay yam fa fekk. yi njëg yi bi ñu ñëwee seetlu nañ ne. produit yi am na waaye njëg yi euh, seetlu nañ produit yu bari yoo xam ne njëg yi wàcc na boo de boo seetloo jamonoy màggal waxoon nañ ne pomme de terre ak soble wàccoon na ba treize mille treize mille cinq cent maanaam ñaari junni ak juróom benn téeméer wala ñaari junni ak juróom-ñetti téeméer juróom-ñaari téeméer boo ñëwee fii tey ci Tiwaawoon danañ la wax ne sobleeg pombiteer am na ci yoo xamante ne egg na onze mille ba douze mille saaku bi maanaam ñaari junni ak ñaar téeméer wala ñaari junni ak ñeenti téeméer. jëwrin gi ñu dénk wàllum jënd ak jaay dem na itam seeti kii di xalif général des tiijaan bi nga xamee ne gàmm gi ay fan yu néew ci des.